jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal jërë ngeen jëf mbokki internet bi Dakar Instant ci ànd ak ngeen ànd ak suñuy programme fii ci Dakar Instant ñu leen amal ay jotaayu borom xam-xam maanaam ay ñaankatu yàlla kii ma jàkkaar lool yaakaar naa ne dootuñu ko présenté ci réseaux sociaux bi muy Serigne Lamine Dramé sëriñ Lamine doon koo xamante ni bu génnee duñ na guléet ndax bu yàggul dara génnoon na fii ci Dakar Instant am ay wax yu fi waxon te mën na ne yu bari tek nañ ci suñuy bëtt waye bala ñoo sori ci waxtaan la koy bayyi mu nuyoo Serigne Lamine nuyu nañ la. waaw waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki Dakar instant ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyar bu baax. di leen ñaanal yalla di sakku ci yeen ñaan yalla yalla bo lañu defal jamm ñun ñepp diko ko defal ko mbooleem mbindeef def mo xamne yalla bind na la te gërëm la. jere mm. jere sëñ Lamine nuyo bi am solo waaye Lamine bala ma dugg ci waxtaan man daam lo fi Hmm. ma man moom xam nga man damaa xaw a sob hmm. muy waxi Omaro waaw daa am loo ma waxoon nga ne Omaro daa am ci guerre bu mu engagé waaw te bu maytuwul li nga ca waxoon daal mu bëgg nga ñëwaat ci tuuti ndax gis na ni fi mu toll ni sëy boobu moom daanaka tas na sëñ Omar fan eh, eh, sëñ Lamine fan nga taxawoon ba ne Omaro ci guerre la taxawoon waaw Omaro bi may takk ndaw si avant mu koy takk hmm. dafa xawoon am ay ay wax daal moom dafa siiwaloon day Ayo Balde. Mhm. donc mu nekk ci réseaux sociaux yi te ñun foofu la ñuy sukkandiku. Mhm. suñu gisee programme ci site internet yi. Mhm. ak yu bëri ci la ñuy taxaw xool. génne ci suñu gis-gis wax comme sénégalais yëpp. noonu lañ defoon ci kaa it bi mu ko defee bu ñu xoolee ne sëy bi mën na koy takk. waaye nag sëy bi du continuer. gis nañ ne dana ko takk waaye dana bëri coow. dana bëri ay problème sëy bi sax darul dam far. loolu yëpp ñu ngi ko waxoon ci Dakar instant ci sa site. donc fi nga toog nga toog man fii ma toog laa toogoon. Mhm. bi ñu ko waxee ak fi problème bi amee même pas ay quinze sour sax matu ko. Mhm. gën ci ay àgg daal quinze jours. Mhm. yëfi commencé déclassé. Euh, tey dégg naa ci yow nag ñi naan sëy ba jeex na ñi naan jeexul. waaye lu mën a xew mooy problème moom am na te sëy ah. boobu duut buy dam bu jeexul tamit mu ngi ci cat li de. waaw no bu doon a jëmm la ju feebar mën nañoo wax ne mu ngi ci sukuraat. wala muy waaj a dem ca ca morgue ba. voilà su boobaa nag. Eh, ay mbokkam rek ñoo koy mën a taxaw mhm. eh, ma wax ci ne maanaam Umaru am na ay sëriñ yu muy fréquenté mhm. am na ay sëriñ yu muy àndat mhm. ma wax ne ko bu fekkee dafa bëri ay bakkan yi muy jox sëriñ ci <laughs> sëriñ ci muy àndat su fekkee du larsan du CFA bi du euro bi du dollar bi anaat ñoom lan lañ àndee ak moom parce que sëriñ bi du ne yow nit ki dafay toog ci télé bi di la waxal di la defal promotion yow sëriñ bi te yow li nga mën ak moom duut nga ñaanal ko yàlla wala mu ne ci problème nga génne ko ci. Mm-hmm. su boobaa duutul sëriñ. Mm-hmm. mais man la. su mm-hmm. fekkee kuy business la nag boo amee problème mu xaalis mën na la abal boo amee leneen ak leneen mën na la dimbale. mais man euh, su ma waxee dëgg rek. mais Sénégal bëriwul sëriñ mais ay business businessman ñu fi ëpp man loolu laa gis. ah sëñ Lamine léegi lu tax nga ne bëriwul sëriñ. gaa yi fi tekk toog yor seen kurus yu rëy seen i kaala yu rëy. waaw xam nga. suñ borom subhaanahu wa taala bu fekkoon ne yàpp bu bëri rek ci lay teg tegtale konoon du jël xar daf ko muy tabaski waaw kon ñay ci la ñu yebal wala mu yebal ñu ci nag mhm. mais nag mu mujj sax far mhm. <laughs> comprendre mhm. euh, kon li ci am solo yëf yi ci du ci daraa ji damay wax toujours ne Sénégal dañoo xaw a yow mhm. léegi-léeg nga gis ku ñëw ak dara ju rëy ñu ne diw dee ci yax bu rëy la bokk wala nangam la bokk mhm. te yax bu rëy moom signaatkat yee ko soxla ñoom bukki ñoom nangam ñoom nangam mhm. mais du du nit ak nit ak nit ku nite ku correct du nit boobu donc nag foofu la nit ñi xeewoogut sëriñ si léegi pédagogie bi ñu am muy dañ sol dara ju rëy dam leb xaalis wala ñu am ku leen sponsoré ñu da ñu lee kër ima bule ko kaw ba suuf wut ay ay xale yoo xam ne tekkiwuñ dara teg leen ci buntu bi pare di leen mosol ay vingt mille ak trente mille xam nañ sëriñ soo dam nag ëpp doole gi yëpp am nañ seen ay fenkat yi bopp. ñoo xam ne dañoo am ay sponsor bien sûr ñuy taxaw ci biti toog boo ñëwee ñu ne sëñ bi kay nangam sëñ bi nii sëñ bi naa. te xamuñ ci dara ñoom yàlla xam ne na ne xaatimu sëriñ moo suñ koy takk. Mhm. mais yow sénégalais bi yaay am gëm-gëm ne. ñooñu yàlla moo leen bindee mooy ñuy ay nit ñu bon nit ñu bon ñooñu sax man mën naa cee bokk nekk nit ku bon. Hmm. waaye nag li ma mën a xam muy lu bon lu bon la rek lu baax lu baax la. Hmm. mais yow yow may seetaan bul wax mukk na sëriñ amul. Hmm. ah am na chaque jour nga jëf gis luy dëggal na sëriñ am na bul wax mukk na ñu man duñ feeñ tele duñ ñëw ci écran bi déedéet parce que wax naa ne màggal ak gàmmoo ak yi nu mel boo seetaan ay temps ci gannaaw daanul feeñ ci télé bi daanul feeñ ci écran bi. te tey yu ñëwutoon ci télé bi ñu ngi koy waxtaanee bu jege si yëpp la ñuy waxtaanee donc duut ne lu feeñ ci site internet bi rek nga ku feeñ foofu rek nga ne kooku moo xam bëri na ku ne ci àll bi te xamul bëri na koo xam ne nekkut ci àll bi waaye dafa xam il faut nag yéen ñi yeewu ngeen xam loolu. bëri na yenn ci sëriñ ci nag sëriñ ci siiw Sénégal yëpp buñ doon saala quatre vingt pour cent yëpp xamuñ dara ah lii maa la ko mais sëriñ ci buñ dee saala ah xoolal sëriñ ci ñu fi doon may promotion rek. gars yi noonu doon complot ñu ne dañuy faj rabak ku ñëw ñëw daanu xalangu yuuxu ñu ne diw ne na mu tegu tim na ko micro beeg lamp yaa ngee tàkk mu ne day faj rab ay jinne lay waxat xoote bu xoote kook xamoo lan la sax jinne waaw boobu moom man maay tudd tur bi ndax moom man maa man maa maa ciy duut. waaw mooy Thierno Moule. donc moom moo fi wootan conseil loolu du jinne il faut nit ñi yeewu. ah mais sëñ bi eh, sëñ Lamine xanaa. non du ay jënd xam nga xam nga ni muy daanoo. li koy sotteeg yooyu du jënd non loolu ku nekk nga man daanu jëfe jëfewul daayira yi ñuy nekk sax léegi la nga gis ku tëb xool na gis ne moromam ñaa ngay daanu il faut mu daanu mu daanu. Eh, loolu da cee am loolu da cee ne. mais tey sénégalais yi dof nañ yeewuñ ci loolu ñu baal ma. Mm-hmm. ba tey ñu mel noonu dañuy réussir seen yoon. Mm-hmm. tey kooku noonu bu ko sénégalais yi bàyyee. ak ñu melni ni moom leen bàyyee fekk na am nañ ñom seen kër yu baax am seen auto yu baax. ana yow mi jëloon sa xaaliss jox leen fan nga tollu ana say ciangat ndax yaang ko jot ndax bi nga sango am am nga amassement wala deet waxuma ne nak képp ku sango safara bi wara gis réussir bi mais bu fekkee témir nit nga joxol safara témir nit yoyu su kenn su fekkee juroom fukki nit yi sangu nañ war nañu gis résultat xanaa. Mhm. au moins ñu ne ah, amna wé na yu gisut waye témir nit kenn gisut. am num nu li ma gën a métti ci sëriñ si mooy sponsor kii bu ñu jël daf signature contrat yi ñu jël ci tele yi. foo leen fekk rek ñu ngi weerante. Hmm. loolu boobu dañuy am ay contrat ci tele yi. mais weerante beeg yàqante bi est-ce que jar na ko parce que euh, saaru soo yooyu ñuy ñoddi. Hmm. loolu ku ragal yàlla du ko def. Hmm. te yow ki ngay ñaan loo war ngaa xam ne yàlla. daf ñu jàngal ci alquran na ragal leen ma ma xamal leen mhm. su fekkee ragal leen ma ma xamal leen la nga gis waa ji mu leer na li may wax ñeme yàlla la ci boole mhm. wax naa ko ma ne bëri na sëriñ su bëri ñoo xam ne euh, coupe afrique bi passé war naa mën a tax ñu ut fermeture gaaw seen gémmiñ ñu noppi mais duñ ko def parce que tey lañ dàq wax Mm-hmm. yow bi nga démé ba nara wax di nga am ko xam dang da koy fay benn dix wala 20000 intervention bu ñëw mu ne man kay señ bi li ma lool gis naa ko mm-hmm. li nga ma nangam li nga ma nangam mu tek ko ñaata nit la ci paré pour ray mm-hmm. donc loolu lay wax né du dëgg sëriñ ci bari nak yewu fu mu toll nii xam Sénégal yi dañoo yewu bitim rew nak ñu gëna dé dee ñëpp sëriñ ci rat nañ leen bañ jeex tak ëpp na def dé wa non parce que ñi ne bitim rew ñoo ñu gëna sonu ndax ñaar dañ leen sonal ñi ne bitim rew ñi ñi képp ku ne bitim réew yor say mbokk di liggéey xaalis di ko jox bu ñu doon ne quatre-vingt pour cent mën naa la wax ne soixante pour cent yëpp ci lu leen neex. su fekkee sëriñ bi la li leen di trahil ci ay sëriñ kenn xamu ni mu toll. Mm-hmm. waxuma ko ngir damaa ragal yàlla waxuma ko ngir damaa jub. Mm-hmm. waaye dama ko wax ngir jaamoo ko yàlla. tabarkaala jërëjëf sëñ Lamine loolu am na solo sëriñ Lamine daraame di sëriñ bu mag dëkk sa Saalum di li ci ëpp nag mu koy nekk mbuur numéro yi boo ko bëggee jot mu ne 77 175 73 24 wala 70 624 23 88 waaye sëñ Lamine. Mhm. damaa gis nga am loo laxas sa loxo bi lu xonq wëñ ko xonq googu. Mhm. xam nga man damaa xaw a sopp. Ah. ma bëggoon nga baaxee ko ma ñu ñuy seetaan wëñ googu lu wëñug lu mu doon. ah non du wëñug neen moom. non wëñ gi neen la de du dara <laughs> neen la. sëñ Lamine moom may daw ci wëñ gi de. waaw la du dara. Ah. li neen la waaw. ah kon xanaa kon bu may def nga nga may nga jox ma wuñu neen gi rek ma ma neenoo ko. neen la de du dara. <laughs> jërëjëf loolu am na solo Serigne Lamine Dramé Serigne la mi ngaa tudd léegi ne Coupe d'Afrique. Hmm. mu laal sport wàllum hmm. football. Hmm. mu am ñaari ñoo xamante ni tuddoon nga leen fii. muy musaa Wagué. ak Kara Mbodj. tey mën nga maa delluwaatal ci Moussa Kara Mbodj dégg naa nga ne tawatam gi am na loo ci waxoon. mooy gi moom dama ne maanaam comme maa ngi moom a dëkk ne ñëw ma faj ko bu wéeree mu soog fay. xam nga loolu moom sëriñ si ko ñu may wax bëriwul sëñ Lamine xaaral nga faj mu faju ba wér doo ko fay maanaam mu ñëw ci man ma faj ko ba mu wér mu soog may fay nga te te yaa garanti loolu su fekkee faj naa ko mu ñëw ci man ma faj ko te wérul waaw bu ma fay karambooj bu dee yaa ngi may dégg te xam naa ne yaa ngi may dégg sëriñ Lamine Daraame mbuur la dëkk nga dëkk mbuur sa genou bi nee na nga ñëw mu faj ko ba nga wér nga doo ko fay ak leneen lu dul genou bi parce que li li ne ci moom ci genou bi la feeñ xay na waaye li ko jëlee bi du neen def non dama lay wax li ko jëlee ci équipe nationale bi ba gars yi nangootuñ koy classé hmm. te euh, place bi mu newoon ku ko man taxawut ko fa ba tey loolu de am na loolu rek laa lay wax man taxaw football gaynde da ciy am solo hmm. voilà football hmm. sa Aliou Cissé mi yor euh, gaynde yii gaynde ci équipe nationale waaw nag gaynde dafay am solo kon nag li ko jëlee foofu lu tax mënatuñ koo boole ci équipe nationale bi du blessure bi kese de te moom moo la gën a xam li may wax dama ne bu ñëwee ma faj yëpp laa wax bu fekkee wérut bu ma fay. loolu am na solo Kara ak képp koo xam ne mbokkam nga yëpp bu fekkee yaa ngi dégg sama kàddu gi Serigne Lamine Darame nekk ca Mbour numéro yi moom laa joxe noonu jokkoo leen ak moom mu faj ko ba mu wér ngeen doo ko fay Moussa Wagué nag. waaw moom wax naa ne waxoon naa ci bu def na un yu teg. Mhm. am na kenn ku ma waxoon ne xaritam la xam na ko waaye waxi Sénégal yi Sénégal bu ñu la gisee nga def benn interview rek. dañuy profité di la woo ay téléphone di xool ba xam yow nan nga toogee. Mm-hmm. ak vie privée waa ji nga jëm leen koy wax. Mm-hmm. te man du ma façon boobu. Mm-hmm. man kenn mënta am barket ma wax ak yow ci vie privée jàmbur. boo ma ooyee sax na moom man la politicien nangam damay def nangam dama laan na est-ce que man lan moo mën a xamal ne yow la parce que xaw ma ndax yow la wala déet. xanaa nga def appel woo ma gis sa kenam xàmme la. mais bu dul loolu du wax ak yow ci problème mu jàmbur amul ku mën a doon nag. donc je suis parce que Sénégal nanaa la sport bu fi football bépp mu ci risque football du Sénégal boo de ni daf na ans de carrière le rafet lu jafe la te ku leen football qui sport, ku il a xam amul mais nag xeexante bi moo bëri a pas bi ci qui wala non dañuy la hmm. fédération football ak ñi nga xam ne ñoom lañ fa dàqe woon ak ñeneen ñi ci des dañuy xeexante kenn ku nekk ak sa mbiri bopp. Mhm. parce que gis nga xeex bi duur na ci sport beeg football bi rek la ne. Mhm. waaye moo nekk ci kër yi. Mhm. donc moo nekk ci bureau yi. moo nekk ci këru diine yi sax. waaw xeexante bi dafa am. mais sëñ Lamine man man li ma jaaxal mooy sëñ Lamine fan lay jëlee ay information ba moom li mu lay wax day mel ni dañ dañ koy togg ba mu ñor tegal ko ko. non xam fa xam fa nag parce que euh, yàlla dogal na. mbub mi dafa oyof trop. Mm-hmm. waaye xam naa lu bëri nag ci Sénégal. Mm-hmm. mbub mi nii dafa oyof. waaye li ci bëri ci Sénégal xam naa ko. non man fii man fi ngay jëlee info yi man moo ma jaaxal. non tey suma téléphone mu ngi nii. Mm-hmm. suñ paree woon moo wan la koo xam ne kilifa la. kuñ liggéey liggéey bu métti. ci ay mbir. ma wan la bi ma koy faj. traitement yi ak ni ma ko doon traité. yaakaar naa am na ñenn ci samay mbokk wan naa leen ko. li nekkoon ci biir eh, biiram bi. bi ma ko génnee ci benn mala laa ko doon génnee nga gis. moom ni biir bay peeree. moom li ci biiram ngay génne ci mala bi ni muy peeree nga gis ni mala bi di néewee. biir bi ni muy néewee dafa toog ba mu yàgg rek mu daanu dee. mala bi daanu dee. maanaam mystique sa ji. Mm-hmm. dafa am. Mm-hmm. donc business ci mystique dafa am. mystique dañ ciy business. ah ñaata sëriñ ngay gis ñuy diw xeesal fii ci ci internet yow ñàkkoon am na yow interest gis nga nag sëñ Lamine non bu ne moo koy wax nag non dañoo xam dëgg rek <laughs> Dakar instant bu ne di xewee waaye sëñ Lamine wax bu ne non ay réalité la lay wax yoo xam ne tey ñoo xam ne tey ñoom si seen bopp mhm. dañuy xeesal diw mhm. léeg-léeg ñu laal ay puudar waaw waaw sëriñ boo xam ne yow course moo war doon sa métier mhm. jaamu ji yàlla dafi leneen ak leneen yow fu ñu la fekk yaa ngi gën a liis jigéen ñi Eh. yow nga ne Soufiane mais ah, est-ce que du kilim neex neex yeeg moo lay xamal ne li jaaba dootul am. parce que yàlla kat da ngay toroxlu ci moom moom lay jàppale. non xam nga technologie moo avancé. non réew mi moom technologie xamut ci. ah technologie Soufiane yi Soufiane yëpp nga baal ma ci kàddu gi. sëñ Cheikh Mbacke mu Sëriñ Saliou milliardaire la. waaw mais boo ko gisee dangay gis ci suuf lay tëdd. Mhm. di xalangu. Mhm. jegewul sax comme ñun ñi li ñuy jege. Mhm. xamu ko sax. Hmm. xamul sax ba neexu àdduna. kon daal gars yi dañuy théâtre. waaye gaa yi mën nañoo bokk la levant. li ma la wax tey eh. dafa leer. jërëjëf loolu am na solo. waaye damay ñëw ci ndañ dëpp bi ki nga xam ne moom boo ko tuddee raal réew mi. muy kacuuraay pale. Hmm. koo xam ne ki nga xam ne moom moom moo dugg pale rek cuuraay ko. Hmm. muy Adja Marème. waaw Marème dégg naa nga nga waxoon ci. ci moo am ci wàllu tawatam googu. waaw Marème Faye Sall de waxoon naa ci. Euh, mais nag waxuma ci ngir politique. Mhm. waxuma ci ngir ñoom dërëm buñ ma jox. Mhm. xam nga senegal avant coowal Sonko léegi wax yi da am yëpp waxoon naa Macky Sall na ko. Mhm. xam na site bu ma ko wax bu ñu demee dañ ko fa fekk. maa ngi ko waxee woon fii Yoff. laa ko waxee woon. waxoon naa ko na ko Macky Sall la Sénégal bu dee motoor la gasoil bi dafa réeragum. Eh. te fi mu jëm fi ngeen jëm moom xamagu leen ko si mu ci internet bi nañ ko bàyyi xel. problème yu bëree bëree bari la koy la koy jural léegi nag li ci nekkit muy problème Maram fay Sall dama ne Maram fay Sall dofut. Hmm, kon li noonu wax daal ci dañoo génn ñu bëri taxaw kenn ku ne wax ay waxam ne Maram Faye Sall dafa dof. Hmm. <laughs> nangul naa leen seen wax yàlla nañ ci am xaalis ak weccet wi ñu soxla woon pour faj ko wanta Maram fay Sall dofut maanaam mosul dof. Hmm. ma teg ci ne Macky Sall bu fekkee am na sarax à vie. Mhm. Marème Faye Sall mi mu takk la. ah kon daal ma Marème daal mooy dooley Macky. Macky Sall bu takkutoon Marème Faye Sall doo dara Sénégal. eh Macky Sall ma ne yow boo takkutoon Marème Faye Sall doo doo dara Sénégal. lii rek sëñ bi nag ñu ko sañ wax. waaw léegi ñu continuer. waaw li tax ma wax ko nag. Mhm. mën naa am après bis dana ñëw ma sañ koy wax. incha allah mais li ci nekk mooy. ma ne leen doful mais doomam bu jigéen. Hmm. am na feebar. E. bu na ci yaramam. kooku de mooy laalaaka bi. loolu laa wax ma dollu yokku ci ne rakkam bu ñu xaw ma rakk la wala mag bi Adama fay Adama Faye waaw. bii xëccoo Grand Yoff. Mhm. lu tax ma seet loolu nag dafa am benn bis ma seetaan site internet ma gis benn coow bu an am entre Abdoulaye Sylla mhm. ak ku ñuy wax Momin Kebbe. Mhm. bi ma leen di xool nag si laa gisaale problème yi mais aadama fay dama ne ñi ko topp. encadré ko war koy dimbale. du ñëw ñu koy dimbale. ma teg si nañ fi bu fekkee am na ñu koy ñaanal amul mystique. moom Adama fay waaw te ñaan nag dafa bokk ci ngàndaayal jullit. Mm-hmm. parce que ñaan ci suñ diina la bokk. Mm-hmm. moom nag ku am diina la. Mm-hmm. politicien bu euh, am diina la ku xam fu muy teg tànkam la ci yu bëri. mais nag fii du koo rëcc. man nag bu ne bu ko neexee na ñëw ma wax ko sarax yi benn par benn muy dégg. Adama Faye wala Marème. Adama Faye laaw. Adama fay moom mi nga xam ne mooy euh, rakki Marème fay Sall. Mm-hmm. loolu tamit euh, ndax fan yi dégg nañ mu génn fi tamit euh, wax ci waxi Sonko ji. Mm-hmm. xam naa ne sax waxi Sonko ji dinañ ci ñëw après du ñàkk ndax sëriñ bi dina gis nañ ne junj nga ko sànq. Mm-hmm. senegal bu dee oto la gasoil ba daal réer. xam naa du ñàkk dégg ñu wax mosal tuuti fi gasoil bi ne ndax ñu jëli ko ndax fi mu toll ni sonn nan Adama Faye bu dee bu doon wuti ñaan. ndax li léegi léegi ñi mu àndal du ñooñ ñooy ay àndandoo léegi moom ñan la war a àndal kon. waaw Adama Faye bu doon ut ñaan saraxam day weex li ñu koy liggéeyal dafay weex. Mhm. bu mu dam nag yaakaar ne laax ak soo laa bëgg a wax déedéet. Eh. loolu rek laa yam léegi leneen li ci desit mooy. Mhm. fi mu jaar bu dee na foofu la du mos sa dégg daali ci yoon bi mu topp daali nag. du ma sa dégg maire Grand Yoff. waaw si si yoon bi mu topp. Mhm. te nag ma moo continuer wax la. Mhm. maire yi ma lay limal yëpp benn bu nekk fi nit di jaar pour jël ko. Mhm. man xam naa yoon wi ak sarax yi. muy ban ak ban. Euh, te kenn ku ne maire yi may lim yëpp. képp képp koo xam ne yaa ngi ci mairie bi te weddi ko. taxawal ne weddi naa Dramé li mu wax. képp koo xam ne yaa ngi opposition wu ci mairie bi te soxla ko dëggalal sa bopp na Dramé dëggal naa li nga wax. man ma wan la yoon yi tegtal la ba nga jël ko. soo paree lu ñuy wax ñu soo koy wax. waaye dama ne muy mairie yoof. Mm-hmm. yoof yoof gii ñu ne. Mm-hmm. xam naa tegtal yi fu nit di jaar pour réussir ko. Mm-hmm. grand yoof ci boppam xam naa ko. dégg nga. waaw euh, beneen bi nu mu tudd bu sama côté Sokone. gi ma dëkkee. xam naa mairie bi fu nit ñi jaar pour jël ko moom it. beneen bi ko ñeenteel mooy Kaolack. sëñ Lamine ñeenti maire yi nga tudd yëpp Yoff Grand Yoff Sokone Kaolack xanaa seen rab dafa dafa danoo bokk seen i rab danoo bokk. non man ni may seetaanee mooy su ma gisee histoire. Mhm. maire Kaolack keñ laa ko xool damaa seetaan ku ñuy wax nowel Noël waaw ma seetaan mu def benn programme ci benn télé. Mhm. ma xool gis na politicien la foofu lay kéeg yooyu. Mhm. ma dam xool. parce que même Mimi Touré ci ñu soxla Kaolack la bokk. mi Touré men bi ma demee xool euh, ci laa xam kaw Kaolack mhm. Yoff tamit xool naa ko ba xam plan am naka noonu xool naa Grand Yoff naka noonu Sokone gi ci sama gannaaw xool naa ko dama ne yii yëpp bépp maire bu xam ne nekk nga fa te weddi ko dëggalal sa bopp wax weddi ko taarkalla loolu am na solo mm. ndax nee naa leen sëñ bi li mu war a wax yëpp bu ko waxee ci interview bi du baax moo tax dañ koy codé gars yi ku ci bëgg lu la leer jëlal numéro yi nga woo ko muy 77 175 vingt 24 wala 70 624 23 88 Serigne Lamine Dramé boo ko fekkul Ndakaaru fii ci Yoff ma nga Mbuur wala mu ne Saalum waaye Serigne Lamine damay ñëw ci li nga xam ne moo lëmbe réew mi Sénégal rëmb na àdduna fi mu toll nii. wër na mu coowal Sonko ak Adji Sarr Serigne Lamine coow loolu. yow naka nga ko gisee. coow bi am na day ñu ma ci laaj. sànq mm-hmm. am na ay sites yoo xam ne. doon mm-hmm. nañ def ak man interview sànq ni ci gannaaw. Mm-hmm. biñ ma laajee nanaa leen ñaari àttekat ñoo xam. Mm. ki ne Sénégal ñu tuddee ko justice. waaw ak ki ne àllaaxira ñu tuddee ko borom bi subhaanahu wa taala. ma ne nag ki ne senegal bu esegee mm-hmm. ki nekk fële moom du eseg. parce que damay wax ne yoomal xiyaam amul pardon ma gis la seek cest diir waaw yàlla mu ne kenn ku nekk sa jëf lañ fay liir. kooku damay punkal mi moom. voilà léegi nag foofu boo ñëwee amul comme ay avocat. affaire yi. Mhm. li lay xamal la yomal xiyam amul avocat. lu cool yi bëri bëri wax ji boo xasee ba dee bu ñuy sang yow kenn la ñuy sang. kon foofu amul avocat de. Mhm. leneen li ci nekkee nag mooy ndax Sonko la. Mhm. walla Macky Sall la. maa ngi wax la Youssou Ndour waxoon ci maa Demba Sow. ak ku mu mën a doon rek mu ngi ñuy gaañ. waaw ah, loolu dajar <laughs> voilà mu ngi doog am njëriñ ku mu mën a doon rek. donc mu ngi ñooy gaañ. parce que jamono dafa am lu laxasu ci biir. ah non parce nag olof mu ne loo bëri bëri xam-xam mënoo nett li gént ak muuma euh, parce que xooluma ko bu mën a xam li fi nekk. ah sëñ Lamine nag coow loolu li muy lëmbee àdduna waroon nga ko mën a waaw non xam nga coow li ñu ci wax ci sëriñ si dafa bëri. waaw te man ñaare lu nit ñi armal jëm ci rek. Hmm. donc man du ma xenu ci loolu. kon yow coow loolu coowul Sonko ak Adji Sarr ñi moom mënoo cee wax dara. lenn rek laa cee wax mooy ñaan yàlla mi nga xam ne muy maye mu daf ca salaam. sirub salaamun xawla mi rabbi rahim yàlla na wàcc ci cool yi lépp fay hmm. lépp di jàmm hmm. jàmm ci Ousmane Sonko hmm. jàmm ci Macky sàll jàmm ci Adji Sarr man loolu laa ak ci Sénégal yëpp jërëjëf loolu am na solo li wax tamit am na solo jàmm jooju moo soxal ñëpp moom la ñuy waaye li may tëjee jotaay bi mooy vaccin yi coronavirus kooku moom Adji Sarr ak Sonko ñoo ñëpp dañuy xaar waaye coronavirus sëñ Lamine xanaa mënu leen ci moom dara ah, dëgg yàlla man de man ma ci corona dara. corona de man de wax dëgg yàlla gis naa nag sëriñ su bari si doon wax na mën nañ ci dara. Mm. wax naa ko sànq ma ne dalal nañ ci sëriñ benn télé bu ñuy wax euh, émission bi mu ngi tudd Ngonal. Mm-hmm. gars yi di ko dalal muy yaanu dara ba mu yàgg am na sax fu ñu ko dalalee yaakaar naa wareef. Mm-hmm. muy yaanu yaanu yaanu ba mu yàgg mu naan waaw. Euh, Macky Sall day waxagul ñu si dara ñun sëriñ si daf ñu waroon a xoo laaj ñu si suñu xalaat nangam nangam. Hmm. yow koo xam ne bu la bopp de métti prestamol ngay wuteeg Doliprane yow parce que nit da ngay wax ci li nga man hmm. maanaam waxal li nga man nga xem ca. waaw bu dugg ci leneen. corona du problème mu Afrique du problème mu Sénégal. Hmm. problème mu tubaab yi la ak ñeneen. comprendre nga léegi nag li leen boroom xam-xam bi waxoon rek. lépp loo xam ne ay pexe ko fi def yeneen pexe ko fi indi. Mhm. gis nga ganaar gi nen nenam bi moo ko fi mën a toccee. waaye bu ganaar gi nenee nga ne maa moom ganaar gi waaye ganaar gi dina xaaral mu bëf da nga toog ba ndar te du tax ci génn. Mhm. donc foofu du suñ programme ñun. Mhm. beneen bi ci tegee mooy euh, ñu bëri waxoon nañ ci tamit ne corona corona bi arrêté na. wax naa ne am naa sama benn mbokku ndaraame ndaraame bu ci waxoon. Euh, mooy gars yu nga xam ne daanaka seen kee jeex rek ñuy sol seen i dara nekk seen i bagage mais le problème mooy affaire bi du loolu. Mhm. nit buy wax dafay wax lu xam. Mhm. corona bi nga waxoon jeex na deuxième vague bi ñëw na. Mhm. ñëw nag ak garaaw goo xam ne dafa indaale ay vaccin yoo xam ne. adduna bi ëpp doole gi yëpp dañuy bañ. tey la gën a métti nag tey la gën a garaaw kon nit buy waxatee na wax lim xam. donc corona feebar la boo xam ne ni ko olof tuddee muy mbas mi. mbas mi daal mbas la rek. mbas nag. yow mi xamoon daara ja nekkoon ci xel koom mooy ki yor fas yi di ko dawal war ko di ko dawal bu fas yi dawee ba mu yàgg mu gis benn gàjji wala mu gis bëy wala mu gis saako ci kaw dafay mbas maanaam dafay tiit tiit boobu muy tiit daf nii loolu lañ tuddee mbas mbas moomu nag mooy waral fas yu daanu ci suuf mooy waral yow nga daanoo ci kaw fas yi ci suuf fas yi moom dam kon fas la mbas nga daanu waaw loolu nag jël day am mbas nag fu mu xamee rek jël la am mm-hmm. kon lii mbas la jël bi yàlla buñ ci bokk amiin yaa jël bi yàlla buñ ci bokk loolu am na solo mbas mi nag yàlla nañ ko mbas noonu bala munoo mbas yàlla na ko mbas. voilà la Lamine yan kàddu la ñuy yëkkatee jotaay bi ndax xam naa li ñu dese ci waxtu bareetu. Ah, alhamdulilah kàddu yi kàddu yi sant yàlla. Mhm. ak yokk ñaanal mboolem Sénégalais yi. Mhm. yàlla dafal leen jàmm. amiin yaa eh, di wax ne lépp lu ngeen dégg ci ñun te mu déranger mooy ci Balla Gaye ak Pape Diouf ak. Mhm. Boubacar ak. ñoom ñëpp mhm. ngeen xam ne jàmm rek lañu leen yi ne woon mhm. Pape Diouf bu ñu ne ko saraxel na woo ñuul wala dafal nangam mhm. dañoo gis ne ay nit a ngi ci kawam fay na problème a ngi ci moom jafe-jafe dana ko am suñ ko waxee Boubacar Diallo it gis nañ ne ay mbiram damatut moo tax ñu wax ko suñ ko defee baax na bu ñu ko defut baax na loolu moo taxoon ñu wax ko ñu ngi ndokkeel nag suma xarit suma soppee bii nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi jàppale bu baax euh, fu mu nekk maa nga fa maanaam maa ngi ko wax Sénégal yëpp di ko wax ay mbokkam ak ñëpp te maar mii fu mu ne rek maag moo fa ne. Hmm. mu nekk ku baax borom xol bu rafet ku yaatu. Hmm. mooy maa ngi ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dimbale ko. amiin yàlla na nga jékki ba kaalay màkk sàppi la. yàlla mën na ko yàlla na ko def. amiin yii ne bi nga am ci sa askan ak ci sa famille yàlla na ko yàlla mottali. dina di nuyu suma sëfoor Pape Ndiogu. Hmm. Euh, Dibo nga xam ne mu nga dëkk fële ca Ndameen. nekk ku baax moom it nekk ku jàmbaar nekk sëfoor boo xam ne macha allah. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama xarit yi toog nii. Mm-hmm. ñoom tim ñoom kërim gars yi yëpp. Mm-hmm. maa di siyaara bu baax. Mm-hmm. ak sëriñ bi. ñu ngi ndokkeel ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla nañu yàlla yàgg dafal tawféex. ñu yàgg fee teew ci jàmm. senegal jëm ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mouhamed Lamine Dramé Mbour. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu doon nga déggee mu wax ko Cheikh Mouhamed Lamine Dramé Mbour mu am solo. ñu joxete fi ay ndénkaane yoo xam ne yu am solo la ni mu ko waxee moo fi ñëwoon wax ndax itam wolof danaan njuumte mënta ñàkk ci doomu aadama waaye doomu aadama ba ci gën mooy boo juumee nga nangu ne juum nga taxaw jéggalu moo fi defoon wax ne woon maa tooñoon Balla Gaye maa toog fii ci tere bi baalu ko àq moom sëñ Lamine moo ko waxoon te yaakaar naa ne jàmm amaat na ca moo fi waxoon tamit ne mbas mi jeexagul waxoon ma fi ne omoro séyam bi du dem te gis naa ko